tey ma taxaw ak kenn koo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb mbokk internet yi muy Mame Less Mame Less bu Parcelles mbooloo maam Less bi nga xamante ni euh, fépp fu làmb am événement làmb bu am duñ ko fa gis moo xam mbërëm bëre ak mu ñàkk mbëre Mame Less tey ñu daje fii ci arène nationale ci li nga xamante ni mooy weccante lenge ci doxoon ci diggante président Alioune Sarr mi fi nekkoon ak euh, ki nga xamante ni mooy euh, beneen président bi Bira Sène tey ban gis-gis nga ci am di wax asalaamaaleykum du nuyu kullukum foo xam ne ci làmb nga yëngu ñi ñëw ak ñi ñëwul di leen siyaare yéen waa wasaare làmb am ngeen yokkute boo leen dox ci làmb di ñaan yàlla mu gën a yokk ci li nekk senegal ak la nekk États-Unis rafet rafetlu ko euh, duñ wax ne Alioune Sarr defu fi lu baax wax naa ko fu ne mbër da daan bëre pare am bon. booba léeg-léeg am nu mu demee manaat bi naan jot naa ceeb jote juma ci mu ne léegi ku bëre ba pare bu altine jotee bu ñu defee réunion talaata ñëw jël sa xaalis kon def na yokkute ci làmb am na lu bari lu mu coppite yoo xam ne def na ko ci biir enceinte làmb ji kon donc mënuñu lu may di ko remercier di ko sant di ko gërëm euh, tantôt Bira Sène mi nga xam ne moo dugg ci làmb ji ren par exemple nekk sa Ndiaye ñëw nañ ci terrain inconnu déggoo ma de. lan mooy ñëw nañ ci lu ñu xamut du question ci lu ñu xamul ci wàllu làmb déedéet question lu ñu xamul ci maanaam terrain inconnu maanaam terrain boo xam ne la fa nekk bari kàmb yéen nit ñooy gas bëgg bira seen surux si moo bari moo tax ma ne ñëw nañ ci terrain inconnu ndax bu ñii dee defar ñii ñi ngi yàq ñii ñi ngi saboote pour bira bañ a dem mais bira seen mii ñu fal la ma leen waxoon rek nañu yëkkateendoo di xàccandoo di dóorandoo wasaara jëm ci kanam. jërëjëf mais ginnaaw ginnaaw loolu. waaw dem <laughs> ginnaaw loolu yëpp dégg nga dégg nga li nga xamante ni euh, sëñ Bass wax na ko victoire. non xam nga boo xoolee France ba France daj bu dee étoile man doogu maa ko te ma nga sama mayo pare dana liggéey ba dee jënd ay milliards de du dem déggoo ma de la soxla war koo indi maa ko indi biir France loo tax je parce que nangul ndogal muy metti je suis fier muy neex je suis fier ndax man dogu maa boo ubbee sama vitrine ma nga fa teg pare nag dana jënd milliards jour te du ko am mais nag tey comme làmb ñi fi indi dañuy ñaan yàlla CNG bu bees bi nekk fii ñu am écoute ci nit ñi xam nañuy déglu. xam ngeen dul déglu parce que tey boo xoolee am na conseil yoo xam ne ñëwuñu te yàgg nañoo ŋàññi làmb te lu xew ci làmb war nañoo ñëw du ma la limal nag. loolu dinañ ci loolu li waraf naan xaw ma li naar naan nuxta tegal foofu sa baaraam. waaw dinañ ci dinañ ci déglu. damay bañ ngeen ñëw na saraax rek sama biir kër dee leen fëgg avant ngeen di ñëw. saraax a ñàkk.